xam te ne Yewwi Askan bëggoon na ko amu ko taxul aujourd'hui ñu délocaliser la lutte ba mu jural ko li nga xam ne moom la moom la dund barki dem aux États-Unis euh, euh, nga xam ne nii gis nañ ko New euh, ci Amérique xam ne nii en tout cas bettul Euh, euh, ci mobilisation euh, ci ay sénégalais fépp ci biir Amérique et même au Canada et en France pour venir manifester contre le président ci une réalité mais dama jàpp ni loolu daf ñu war a interroger ñun ñëpp je pense que il faut que ñu garder l'essentiel et ñu xam ci lan la ñu nekk suñuy wax démocratie mm-hmm. la démocratie Sénégal judduwul démb judduwul bërki démb euh, je pense que ci système politique en tout cas ci Afrique bi ñu nekk euh, je parle sous le contrôle du doyen euh, on a commencé à voter en même temps que tubaab bi en 1872 ñuy participer élection ba léegi et ay alternance parce que souvent on pense que Sénégal 1960 la commencé wala 2000 euh, et boo ko xoolee depuis nga xam ne nii tubaab yi ñoom ñooy dem élection député di représenter Sénégal muy am ay alternance ba Blaise Diagne di ñëw lu premier noir en 1900 1914 euh, conflit politique ak divergence politique loolu moo avancé le Sénégal ba Sénégal mës a nekk modèle d'abord ci période coloniale mais aussi fexe ba garde modèle boobu pendant les de du 1960 ba léegi il arrive que ñu externaliser suñuy conflit euh, politique à l'extérieur mais je pense que gis nga démocratie am na fu muy toll le problème si on a des problèmes politiques et c'est normal en démocratie parce que démocratie dafa laaj divergence dafa laaj gis-gis yu waroo dafa laaj expression yoo xam ne nii expression libre et moi je mënuma gis Sénégal ku mën a taxaw ne mais ñun ñu ngi ci table bi toog suñu gis-gis dafa waroo ni ñu gisee réew mi ni muy doxee bokkul et c'est ça la démocratie et ku ci nekk Sénégal sa xalaat mën nga ko wax mais dans la démocratie dafa am forme yoo xam ne nii moom la ñuy manifester divergence suñu nekkee ci principe yooyu le débat il est interne on ne peut pas dire euh, que dañuy bëgg am souveraineté dañu bëgg am une démocratie majeure dañu bëgg nekk ay acteurs majeurs dañu bëgg nekk ñu ñu nawloo il faut que ñun dans nos comportements et dans tous nos approches sur le plan purement démocratique mu nekk loo xam ne nii dafa nekk à la hauteur de notre système démocratique euh, euh New York li fay am at mu nekk ñëpp xam nañ ni vingt 21 22 23 septembre at bu nekk chaque année ñetti fan ñeenti fan yooyu adduna bi yëpp chef d'état yi dañ fay daje. waxtaanee problème adduna bi jàppuma lu rafet la ci démocratie parce que euh, je veux dire euh, Sénégal y au moins quatre millions d'actifs tous les jours ñu ngi xëy wàcc liggéey tout fonctionne dans le pays. Euh, jeune dëkkuñu ci réew moo xam ne nii am na problème de salaire foo xam ne nii à la du mois ñu ne am na problème de salaire wala le système bancaire est en crise wala l'économie wala tel amul soo xoolee même les régies lii indicateurs yi même les régies de finances financières muy impôt muy douane on est dans une croissance donc on a un pays Tchad wax na ko léegi sur le bilan matériel mais boo nee le bilan matériel on ne le remet pas en question dans une démocratie dans un pays qui marche ce qui est plus important unité de mesure bi c'est le bilan matériel d'abord le bilan matériel mais il est accompagné sur le plan social. non dafa nank rek il y a l'immigration clandestine. non oui mais la question de l'emploi. vous savez moi il y a quand même le social. oui ah Fat nous sommes tous des Sénégalais. bah oui. nous sommes tous non dafa nank rek Guèye nous sommes tous des Sénégalais ñun ñëpp ay Sénégalais lañ ku sa deret Sénégalais bu fekkee mooy dox seer les problèmes qu'il y a dans le pays ñun ñëpp xam nañ ko personne moi je vais pas rester là vous dire qu'il y a pas de problème dans le pays attention. je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème mais gis nga réew dafa am nu muy doxee problème yi dañ koy constater mais responsabilité ki nga xam ne nii moom moo yor baat bi mooy saafara problème bi avant may ñëw si problème yi damay wax ni je pense que suñuy conflit politique on doit le régler en interne. waaw mais si man li am Amérique man sincèrement waaw mais li am Amérique li am Amérique li am Amérique au Sénégal li am Amérique. Mm-hmm. je veux dire ça n'empêche pas président. du agenda bi mu waroon am mu déroulé ko malgré coow li parce que y a deux choses il y a ce qui sont dans la rue le président il est sur l'essentiel et impact bi muy am Sénégal ameewu ko boo nekk man accompagné naa président mois de juin on était à Paris mais manifestation yu fa am on était ensemble à Paris manifestation yu fa am ampleur bi ñu koy yox ak Sénégal ak ampleur bu muy am foofu mais c'est pas ça qui est important ce qui est important en démocratie que ça soit aux États-Unis que ça soit au Sénégal mm -hmm. que des Sénégalais qui vivent aux États-Unis sur le principe qu'ils s'organisent pour manifester mais je pense que mun nañ ko def mais ñëw si hôtelu fi président nekk seen c' est de l' institution de votre pays cest que vous venez insulter non pas Macky Sall mais vous venez insulter insulter la première institution de votre pays ça veut dire que da ngeen ñëw saaga seen bopp parce que Macky il faut que séparer deux choses Macky Sall président de la République et Macky Sall chef de parti ou démocratie aussi non mais dire quand on va à l'étranger il y a quelqu'un qui incarne aujourd'hui Sénégal boobu muy le président Macky Sall qui incarne Macky Sall qui que Sénégal les libertés individuelles et collectives yenn saa yi ñu ko c'est pas manifestation ñu ñu euh, c'est pas ça oui je suis d'accord je ne suis pas contre, comme les gens le faisaient dans la diaspora il y a une dizaine d'années. Le président vient, il va à l'UNESCO, Dem Châtelet. Le matin, ils portent leur message. C'est ça la démocratie, c'est ça l'exercice élégant et sain de la, la démocratie. démocratie oui. Les gens ont la liberté, que ce soit à Paris, à New York, mais pas de s'organiser non je veux man dama wax li ma gëm mais pas au Sénégal non dama gëm. seen liberté non nekkaguma Sénégal xam nga il m'a posé la elle m'a posé une question. si li xew amee rapide oui. je dis je ne suis pas contre le principe en tant que démocrate sincère. d'une manifestation et de l'expression de ce qu'on pense, mhm. on ne peut pas avoir l'unanimité. Tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Dans ce pays, les gens ont des désaccords. Je ne suis pas contre l'expression d'un désaccord. Il faut que les gens expriment leur désaccord. Mais il y a des formes d'expression de désaccord. Je veux dire que les gens s'organisent à Central Park le matin. ñu rassemblement ñu joxe seeni message ils peuvent le faire mais on peut pas mobiliser 400 300 sénégalais ñëw devant l'hôtel c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est cette forme là moi que je dénonce c'est-à-dire que mais Alors, que les gens s'organisent qu'ils aillent ailleurs qu'ils le fassent le matin c'est pas un problème mais dem ci hôtel bi c'est-à-dire que l'insulte qu'est-ce qu'on va dire tubaab bi. léegi léegi xafoor moo tax ma ne est-ce que euh, c'est que ñun suñu bopp la ñuy saaga. je pense que il faut que ñu remettre en question on parle de l'état de notre démocratie. si on avait autorisé une manifestation encadré ko nga xam ne même les sachets d'eau dañu koy ramasser du permettre Sénégalais ñu exprimer lu leen metti ba du ñu yegg ci fi nga xam ne. on délocalise non non non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir je pense ah que ça n'a absolument rien à voir. Euh, Sénégal les gens ont l'habitude de s'organiser mais je pense Macky Sall dans six mois non Pape Abdou c'est une question li ma lay wax ni c'est extrêmement important quelles que soient nos divergences le président Macky Sall dans six sept mois il n'est plus président de la République du Sénégal. oui c'est c'est notre d'accord li mu waroon def Sénégal.